alqudratu wal irada ngeen xaare asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi maa ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen baal xaq te di ko sàkku ci yéen ñu fas yéene ànd ak yéen ci diiru weer koor yi ci naafile yi ci guddi gu nekk di ko sukkandikoo ci téerab sëriñ Suhaybu bu Mbàkke bu tudd Qurratul Ayni di dimbali koo kàttanul sunu borom subhanahu wa taala njëkk loolu ñuy sàkku ci yéen képp koo xam ne abonné gu seen youtube bii da Aynul Hayaat nga daal di gaaw daal di ci abonné ngir bu dugalee naa ci mën cee jot ak mboolem yi am njëriñ ngeen koy dugal ci bëccëg weer wi yëpp ngeen mën cee jot naa fi la guddi juróom-ñetteel gi nag ñaari rakka la rakka bu ci ne faatiha benn yoon ak qul huwa allahu ahad ba saar bi jeex fukki yoon ak ñaar sëriñ bi nee na julli googu day ku ko def xarafu ci ne des na ko ci bindal tuyaabee jaamu yàlla junni at dana mel na yit ku lele xeetu yonte bi sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman juróom-ñaar fukki at yu mat boole ca màndat leen woddu leen mel na ne it ku goreel junniy jaam te bu ñaanee yàlla mu nangu ko te bu dekkee na dekkuwaale ak leer te buy jéggi siraat nig melax lay mel te dees na ko rombloo juróom ñaar fukk ñoo xam ne a yoween na leen bu ko defee ñu ñaan yàlla sunu borom subhanahu wa taala mu nangoo ñu sunu koor nangoo ñu sunu jaamu yàlla ci barke sayul xadim jërë ngeen jëf wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu